samba jayle ña samba coro faal sidi barxaam asu jànxay yaayam baay ñas ablaay baayam ku la neeti maa gën danga ko naan ku la yar dagan na tàggoo dagan na loo ci def danga koy teg wey nay la kumba kaay birima yendoo yendoo ay sa tàggoo du sabak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 pour revenir rek ne nit rek euh, ku gudd fan rek màgget koo muntu doon nag ku gudd fan da nga màgget néeg bi nga dëkk sax dootoo fa mën a pour nga kii sax dañ la fa yenn di la longévité moo mel noonu mais Doudou je me rappelle bi muy doon xale moom il était puissant il était puissant macha allah di def loo xam nag mosul euh, euh, ñi fi nekk tey mënuñu ko woon muy waykat yi ku si mel ni kii nu mu tudd Moussa Diouf mënu ko woon dama maa ngi koy nuyu <laughs> au passage ñoom galas mënuñu ko woon woykatu làmb yi bëri mënuñu won loolu tiaa <laughs> fi mais Doudou dafa mënoon bëre ba pare di woy dangay ñëw ci làmb uble euh, muy muy way de di yu neex làmb ji toj mais nga doon mbër ma fa ub làmb ja du jékki-jékki ne leen noo koy dama koy daan daal di jël micro ba teg sumee ko ñëw dëkk la mais boo dof dof loolu du du du dafa mënoon yenu du jaay du jaaykati ku mënoon yenu la ndeysaan. toj na mbapat yu bëri fii. daan bëri di way. da daan bëri di way dama lay wax de te bu dugal dafa mënoon li nga gisee amoon na doole ni mbëri ba pare mën a way. danaan man ñaari fasal la amoon mën naa bëri mën naa way mbër bu réglé leen rek. mbër mu ci def loolu nag mu ñëwee da lay daan xam nga. ndeysaan àdduna di dox di dox mu amoon nag benn voix boo xam ne dafa spécial woon ci làmb fu mu yëkkatee micro bu mu yuuxu ñu xam ne du jaaykat yi. am ci expérience mën a way xam nga moom it doonoon nag aussi nit ku baax ba sama je me rappelle sama jubile bii mujj rek ndeysaan mu ne ma xaw ma kan mais yow doo jubile mukk du ma ñëw Kairé parce que relation bi ñu am maak yow wax wax yu rafet ñëw kot ma vraiment xam nga rek xam nga doog yooyu ay souverain yoo xam ne la moo tax àdduna amul solo nañ rafetal lépp rek parce que lépp rek fa muy man bu ëllëgee damay ñaan yàlla mu yeex mais day am mënul ne mënul ñàkk waaw donc nañ fexeel lépp lépp rafet bu lépp rafetee rek incha allah après nag nettali yi mooy mujj quoi lii waykat bi waxoon ku mag euh, euh, ndongolo moom it ndeysaan waaw que après lépp si ay nettali lay mujj quoi. xam nga àdduna moom lépp loo gisee continuité euh, continuité la mais expérience bi Doudou amoon maanaam dafa am vécu ci làmb mooy comme li ma la wax nii dafa bëri. ñi fi nekk du ma du ñu ay waykat de mais maanaam moom dafa euh, ñaar lu si nekk da ko da ko mën gis nga da nga daan gis ñaari mbër di di bëre sax di doyal mu am mu jékki-jékki am nu mu waxee wala am nu mu yuuxoo bu ko defee yéen ñu nekk ci géew bi di nga am loo leen santé si xam ne kii wax nii wala kii yéen lay waxal waaw ah, donc boo xale yu bëri xamuñu loolu dañuy jékki-jékki rek day way nii waa pour way mais duudu lu si nekk rek dafa am noo xam ne rek daan temps la amoon quoi. léegi loolu nag expérience la donc jeunes yi ne léegi moo tax il faut ñuy dem ci di jege mag yooyu parce que ni mu amee ci làmba ji problème bu bëri xale yu mën a ñàkk mën a bëri noonu la amee léegi ci way bi boo demee ci woy bi léegi da nga saa yi nga gis xale yuuxu malgré ñun duñ chanter dañu xam ne kii woyul par rapport tey boo déglu woon Ndiaga Mbaye wala nga dégg Laay Mbub wala Youssou Ndour mi rek daanaan la Thione Seck Ismaïla Lo Baaba Maal mais dafa am bu jeune génération yu ñëw si suuf ñoo ñooñu kenn xamul lu ñuy def te léegi la fi gën a yomb waaw mais ñee dañ daan dañu rampe moo tax nag moo tax ki rampe ki rampe lu du benn daal waaw loolu la donc dafa dal ci daf ñu dal ci mbër yi quoi donc euh, du daal euh, en grosso daal macha allah quoi. samba jay laña samba corofal sidi barxam asu jànxay yaayam baay ñas Ablaay baayam ku la neeti maa la gën danga ko ku la yar ànd dagan na tàggoo dagan na loo ciy wey nay naa la kumba kaay birima yendoo yendoo ay sa tàggoo du sabaat faamaat yoon maa Saale Njaay Saale Njaay kaw ki nga way fekkante Alaaji bu Saaxo dafa daan wax ni boo fekkee kuy jooy bu ko ne bàyyil jooy da ko naan kuy dóor bàyyil dóor yi